di bin faal yaay dundalaat yaakaaruma ñoo ngi Kër Massar tey fii ci Jaxaay di nuyuwaat euh, Sénégalais yëpp tey nag ñu def li nga xamante ni loolu la ñu baaxoo la coalition Papa Djibril fal président mooy dem daje ak askan wi li nga xamante ni moom mooy seen njàmbat ñu mën koo gën a comprendre doon nañ ko wax di ko di ko ñaxtu léegi dañoo bëgg a ñëw pour saafara ko te bu ngeen ñu wóoloo le 24 mars 2024. noonu la ñuy soppee réew mi donc euh, li nga xamante ni moom moo ñu indi tey fii ci banlieue bi entre Kër masaar yëmbal ba fii nga xamante ni fi lañu nekk tey jii muy jaxaay fii ñu taxaw tey dafay illustrer dafay wane jafe-jafe yi nga xamante ni askanu Sénégal nekk na fa réew yi raw yëpp li ñu rawee mooy éducation fii ñu taxaw tey muy lycée jaxaay bi su tawee problème mu assainissement depuis plusieurs années daanaka xale yi mënuñoo jàng donc dañuy toog ay weer yu bari jaaxle kenn du mën a jàng loolu nag dafa nekk benn indicateur maanaam day wane lajj goo xamante ni lajj nañ ko sur le plan de l'éducation noonu lañ lajjee sur le plan de la santé ndax hôpital bu jaxaay bi tamit xam ngeen ne dafa tëw a pare booba ba tey mënta pare fii loo gën a dugg di gën a jafe di gën a sonn ci wàllu sécurité ci wàllu santé ci wàllu éducation kon liñ leen digoon Euh, matale wuñu ko mooy di ngeen am service public de l'éducation bu baax di ngeen am service santé bu baax di ngeen am service sécuritaire bu baax ñun nag li tax tey jii ñu nekk candidat mooy dañoo bëgg a teggil askan wi seen coono yooyu saafara seen jafe-jafe yooyu loolu moom moo tax ñu amee cawarte gi amee bëgg gi amee xam-xam bi pour xam yoon yi ñuy jaar ba kenn dootul luubal xaalisu Sénégal kenn dootu ko caxat-caxatee waaye dinañ ko mën a faj mën ko saafara ba nga xamante ni ndaw yi Sénégal ndaw yi jaxaay dinañ mën a jàng ci euh, anam yi nga xamante ni moom mooy li gën a mucc ayib li ñu benn soxna wax témoigné ñu ko duñu amatuñu jot sax tëdd ci lal yi ndax fajar gi la ñuy jóg guddi la ñuy ñëwaat waaye fajar googu ak guddi gi problème mu sécurité bu mag moom mooy posé donc loolu nekk loo xamante lu doy waar la am problème mu marché tamit marché yoo xamante ni yu mucc ayib lay doon yu dëppoo ak ñoom seen bëgg-bëgg le cadre de vie il cadre de vie daanaka boo xamante ni mucc naa amu fi problème mu environnement problème mu inondation problème mu assainissement problème mu insécurité boo xamante ni foo ko takk weesu na ko ndax am problème mu éclairage public donc yooyu yëpp incha allah le 24 mars bu ngeen ñu wóoloo dinañ ko saafara euh, ba nga xamante ni dootu leen ko amati incha allah dañoo ñëw ngir euh, teggi coono askan wi ñu teggi ko saafara seen jàngoro yi loolu moom moo ñu dugal ci li nga xamante ni ci lañ nekk te yëg nañ ne am nañ cawarte gi am nañ yitte gi am nañ xam-xam bi su ngeen ñu wóoloo dinañ soppi réew mi.